ku la waxee ne ko sa waay tubaarkal la ndax lu tax rek jëf ndigal yi bàyyi tere yaa ngay ŋaaw nañ sàmm di station yi te yooyu moom moo la ko sant tey da ngay sikki sàkka teew na wala teew yàlla kooku kooku war nañ fee bàyyi xel moo tax yàlla ku ko ragal ku ko ñime amul ndax saa boo ko boo nee ñime naa ko day yónni lu tuuti mu ñëw gësëm na ba nga yëg ni yow nii nekkoo te loola du tekki dara ci kanamu yàlla kon corona bi mën nañ cee jàngate ne euh, am na benn yëg-yëg bu mu andil nit ñi ñu war koo jàngate ci yàlla war nañ cee mën a jàngate ci corona ne ndekete pas-pas day faj feebar pas-pas day faj feebar mbokk yi feebar bi bi ñu commencé di wàññi bu gis nga buñ bàyyi woon wàññikaay yi sax wopp ji dem doomu aadama daa bokk ci damiram maanaam yëg-yëgam bu dee sentir rek mën naa indi feebar dama ciy joxe benn misaal ci seen soxna soo xam ne daa sëggoon fenn di gaano romb ko ci roñ ay tànkam soxna si am sentir ci ne yalt wi ci awraam la dul du ko feebar bu metti gëm ko lool nag ne yalt bi daa dugg ci awraam fu ñu ko yóbbu docteur docteur yóbbu nañ fa ñu def ay rajo analyse def lu ne xool fu ne deretam fu ne ñu xool lu xew gisuñu dara ñu ne ko dara newul ci biir soxna si ne moom wóor na ko ne yalt baa biir awraam ñu faj faj faj faj faj mu ñoo faj biñ demee ci benn psychologue mu woo yi soxna si ñu ñëw mu ne leen da ngeen di dem ngeen rayal ma bi yàlla te buñ ko yëg su ngeen ñëwee ma faj bañ demee ray yalt bi mu ñëw tëral soxna si daal def lëx lëx lëx tuuti ci awraam daal di génne yalt ba mu ñu ray ne ko mi ngi nii génn ca suba sa soxna sa daal di féex daal di wér kon li ko feebar li ko feebar loon mooy problème mu damir la am bari na tey ñu tëdd ñu naan leen da corona dañ koo ragal ba far corona wallaay dañ ko ragal rek ba far corona dañoo nekk di ko moytu di ko teggi di ko teggi ba far rek daal di corona parce que lu mu doon seen damir moo yëgoon ne dañoo corona dañoo war a corona nga xam ne bu sëqatee rek danaan est ce que mbaadu mbaadu mbaadu te yàgg naa sëqat nag de ko ñu tudd feebar daana sëqat amaana sax siiñ yu bari daana ko dal sax yoo xamante ne ndax siiñ yi ñuy tudd corona ñaare ñun Sénégal bii duñ ko wax dana cay nekk wala bañ ci génnee yàggul dana cay nekk rek wala biñ ci génnee yàggul léegi su boobaa rek bu sa damir toogul rek danga naan maa ngi ci affaire ba moo tax ma gëm ne liñ liñ ko tudde nii mi ngi fi moom kenn du weddi feebar waaye xam naa ne test yooyu gis gars que ñuy wax yëpp gars yàgg nga biñ demee ban ubbi nañ yoon yi ñu bàyyiwaat nit ñi ñu dem ci lañ gis genn xéewal ku daan jàng li ilaafi Quraysh ilaafihim rihlata ash-shitaa'i wa sayf falyabudu rabba hadha al-bayt alladi min juu' wa amanahum min xawf ku finkiwul corona mu ko fi gis nga njariñul rex la muy dem ak a dikk bëgg a dem dem bëgg a ñëw ñëw yëf yi dem ni mu war a demee loolu moom corona rek moo ko mën a fii amul leneen lu ko mën a fii waaw ci lañ gis njariñoo dem dem nañ ba yàgg ñun ñëpp ñu jóg jéngu ci dañuy dem lu mën a xew rek dañuy dem parce que lu tax rihlata shitaa'i wa armes génn ci ragal ragal nag ñett rek la ragal ci sa bopp wala ragal ci sa yëf wala ragal yàlla ñetti ragal yi ñoom ragal ci sa bopp mooy ragal ñu lor la ci sa jëm wala ragal ci sa yëf ragal ñu jël sa alal wala dara wala boog ragal yàlla kon xaw fu ngir ñu génn ci rabb haasal bayti xoolee lii laa fi lim neexee saar wi te saar wi dafa am harmonie bu baax ak saar sosoon muy alamtar li waral mu nëx dafa jékki-jékki rek daal di yónni corona andi xawf andi joo ba noppi téye yoon ci ci ci ci ci lu tuuti loo xamante ne tulut ni sama baaraam bii moo tëj yoon yëpp andi tiif nit ñi tonc tonc fu ne ñu jëm fa andi tiitaange ci nit ñi biñ demaatee ab diir bu gàtt mu ne ko waar ba seet nit ñi daal di nekk àll yi saar woowu na ko gaañu téye ñu nafaraat ko ci corona bi xam naa waxtu bi dafa xat mooy jëlaat waaye bu ñu bokk na ci liñ ci mën jàngate ci corona bi mooy ndekete xam-xam bi ñu dox ci bayna ilmiya wal mantiq saxul waaw li lépp luy dox ci diggante ilmiya wal mantiq li dox ci lusi ak science saxul taxawul lii firnde bi mooy tatonnage bi dafa dem ba ñun ñëpp wóolootuñ ñi ñu jiite. da ngay xëy tay ñu ne masque yi kenn waru koo takk bu subaa ñu ne façon masque bii lañ takk fa lañ war a takk dem ba yàgg di toog ci télé naan ñii lañ ko war a takkee dem ba yàgg naan da nga koy doog fi dem ba yàgg ñu ne takk leen takk leen takk leen li jëm jëm léegi ñu nit di takkee deux heures de temps da nga ko war a sensé ñu ne fóot leen mu leer ne yéen ñi bañ la doon njëkk a jaay dañ doon jaay affaire rek mais fii ñu mujj mooy nag dëpp bi kon da nga ci yëge nii buñ doxal distanciation sociale yi amul sens ci feebar biñ ko waxee ñu ne pour la ñu ne ñoom dañoo jël ay nit quarantaine leen 14 jours bañ leer na feebar bi nekkul ci ñoom ñu ber lu mat 100 kenn ku ne ci sa néegu bopp biñ doxee lu mat weer ñu testé leen ñoom ñëpp dañoo positif ah lu leen wàll nee na biñ gisee loolu am nag lañ ne nañ gaaw dem ci nature bi ne ñoom ñu daal di gis nga bi ñu defee déclaration bu ngeen dégg Espagne daal di def seen manifesté bu mag boobu ne masque yi day day nga dégg France yi daal def seen manifestation bi ne masque yi day day ba a gëmal ne masque yi ñu takk moo wàññi feebar fekk dafee daa lëmbe doxantu doxantoom war a ñibbi ñibbi fi ne buy dem nii bu neexee ñëpp ñu tekki nekkul ne damay damay contesté masque wala loolu waaye nag buñ mës a gëm ne masque yi nañ gëm ne ci ndigal lañ koy teg ndax réew day dox ci ordre waaye jullit wërta war naa tuuti loolu mu gëm ne masque bi mooy delloo gannaaw feebar loolu moom day tuuti loolu moom day feebar day day doyadi lool lool lool amaa nag day réew kenn du ko yóbbu ci désordre anarchie kenn du ko yore réew réew dañ koy teg ci ay luwaa leer muy dox waaye nag du tee nag du tee nag euh, ngëm-ngëm yi moom kenn moomu ko danañ xam lii saafara ak lu lu saafarawul ci boobu kon ma jeexale ci élément bi mooy corona ci wàllu jikko corona ci wàllu jub corona ku ne ku ñu ne ndakaaru mën naa ñetti fan du dem boîte de nuit du def nuit blanche du dem sóor loolu da nga ko de faw rek mu def benn nuit blanche am wala mu dem boîte de nuit wala mu dem nangam waaye dañoo xëy xëy rek corona ñëw idéaliser nag di wax naan ci contexte bii moo tax waaye dañoo war a xam ne rek baaxul wala ku daal war a xam ne lii firnde ji mooy xaw ma nit ñi seetlu nañ wala déet jamono bi corona bi feeñ dafa dajeeg jamonoy tàngoor yu métte métti moom la war a doon waaye dafa mel ni dafa andi mel piir ci àdduna bi mu dal xaw ma ñi ngi yëgam déet nag boo demee ci réew yi dund gëm-gëm daa mel bu yaatu boo ci siin rek danga naan ko waaye sa waay ci loo nekkoon daa mel ne da doon noos foofu étude yu xóot mi dañoo dañoo sori jikko yu ci boobu jamono ba ruu yépp yëg ne nit ñaa ngi ci jàmm ruu yaa ngi ci jàmm te ruu bu féexee rek nit féex ruu su féexee rek nit féex te ruu yi féexoon na